ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ مولانا رسول المصطفى الشادق الامين وعثمان وعلي وطلعت والصبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو هريره بن جراء وعمسة والعباس وجحفر وعقيل والعزن والحسين وفاطمة وقدية وعائشة وسائر امهات المؤمنين ورضي الله عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم باحسان الى يوم الدين الدين اللهم اجعل القرآن عاصم ربيع قلوبنا اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واسرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافنا لما فيه رداك عنا اللهم اجعل القرآن عاصم أمامنا وغايدنا إلى الجنة ولا تجعل قلفنا شائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن عاصم شافعا مسافعا فينا ولا ما ماحلا مشدقا فينا اللهم اجعله لنا ولا تجعل علينا اللهم ارزقنا تلاوته على نحو الذي يرضيك ذلك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حدوا إلا كفيته ولا غائبا إلا رددته ولا عاسيا إلا عصمته ولا فاسد إلى أصلحت ولا ميتا إلى رعمت ولا حيبا إلى سترت ولا عسيرا إلى يسرت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا قل لك فيها رضا ولنا فيها الصلاة إلا أهنتنا على قضائها في سمنك وعافية إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير يا صل الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات وشكر حكيم اللهم علمنا منه ما جحلنا وزكنا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 مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا سمعنا مناد ينادي للإيمان ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحصنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا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 اللهم أعرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا فيك ونضر بك في نور أعدائي ونعوذ بك من سرورهم اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم اكفنا بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نشيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنسانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وتائنا وعصينا اللهم يغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واعذرنا في سنة النبيين والصديقين والصهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكفانا أيدي المحتدين ولا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من حبارك معرسين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ha <laughs> ha! المتوكل Muhammad sëriñ bi dañ ma sant ne ma naa wax ci turu bokk yi ndax wax ji yaatu na te li ci ëpp solo sax Abdou Akim wax na ko te gis nañ sa yitteeg li ngay li nga toggoo ci yitte yëpp gis nañ ko xam nañ ko moo tax ñuy tënk rek li ñu bëgg a wax xajut kenn ku ne mën naa fanaan wax ci ci yow ci lu bare bari bu ba set waaye li ñuy jiital ci suñuy wax daal mooy sëriñ Cheikh ak i bokkam yëpp. ñu ngi lay siyaare soxna si bañ ko yëgee ñi ko ñépp yëgee mu xat lool yi biir màggal gi mi loolu yépp jàllee sëriñ Cheikh mii bari na fii ci dëkkandoo yeeg bokk yi ñoo xam ne ñëw nañ fii di ko siyaare soxna si loola nag li ko ko may mooy doxin ni mu doxee ak yow ba ñépp xam ko ci lool na xam ne kon waxtu woo fi nekkee ba dem ci yeneen yitte mu des fii it mu ngi dox ci saw doxin Nek sa jawrin fi ci walu wii te maté nako seuk ñun nak sunu rak la sunu lepp la waaye waxtu li joté bokk yi yépp lepp luñu mën di nek nañ ko bayyi ñew fi ndax mom jaral nañu ko te yow mom ëppal nga ñu lool kon nak dañuy sant di ñaan yalla guddal sa fan lool ba sab liggéey yépp ag fu kawé sa ñort té mu and ak wër ak xewal bu baax nga ñaanal gone yi tamit nak mana ñu gën ko man gën ami xewal ak wër ba waxtu wu koy defate nak lepp gën di yok rek gën di yomb señ Cheikh nak mu ngi lay xamal ne dafa dëkk ak ay bokkam ci ay magam dëkk ak ay dëkkandoo ak bokki talibé yi ak yulit yi yëpp fi mu ne bi mom ñepp nga fi rek bandam euh, tarikh bu ne amna fi té suba ba légui ak bët bu set bi ñu koy waaj ba léegi ñëpp dañ ci sonn ci fànn yëpp nag kon loolu da la koy seereel ndax xam sa ndaw la fii rek nekkal la fi te ñu xam nañ loolu ndax bés bu màgg Daaru Xudoos ñëwee man mii ci sa kër googu lay fanaan te mbooloo lay àndal te sañ Cheikh mii lay dalal daanaka su ma agsee dama ko naan rek naa bàyyi ba beneen ma door a gis sañ Ba yow moom ginnaaw gis naa la fanaan ci këram gi doy na lii nag mbokk yi am nañ ci mbëgg mbégte moo xam ne nag réew mi nag ak li wër dëkk yu baree baree bare buñ ko mënuñu koo lim dañoo tënk noonu waaye dëkk yi wër Kawlax yëpp dëkk bu nekk ay nit jóge na fa ay Dakar ak yeneen noonu eh, am na am na ñu jóge ñoo xam ne ñu ngay liggéey ba Fuuta te ñëw nañ fii muy Njaay Ndour mais ak ñeneen Ndakaaru moom mbokk yi fa nekk yëpp ñëw nañ du ma lim sax ndax ma limee dëkk yi kon day gën a yàgg rek waaye daal ñu ngi lay seeral ne Serigne Cheikh daal bégg na mbégte noo xam ne magam yi mu nekkal ci kër gi yaatal nañ ko jàpp nañ ko ci bis bi ndax seen bis la té kenn xatalu ko ci dara bokk yi mu dëkkandoo yi ak ñi bokkal daayira yi yépp non ni ko Abdou Akim waxé yëf yi yaatu na ndax xam naa daal li ci dess sant rek lañuy def té mu ngi lay fatli tamit ne amna bokkum talibé mu bokkon ci ñi di jang kurel gis jambar lool yalla dogal mu wàññeeku mu tudd Seexuna Ba néna bi mu démé tamit wax dëgg yalla mu ngi la ko yégal di la ko séréel mu bëgg def ñaanal ko Euh, ak ñeneen am na mag ñu fi wàññi waaye loolu yëpp ñu nga def ñaan rek yow daal sa ñëw fii xiiwal la ak ma yërmande yal na yàgg lool te ànd ak wér bokk yi daal mënuñu laa fay te ñëpp ñoo kontaan ñëpp seen xol sedd na mën naa cee wax lu bare bare bare bari waaye wax ji daal fi ne xam nañ sa yitte ni mu demee sant nañ la Mbàkke bu baax tubaarkal yal na yàlla guddal sa fan. alhamdulilah. bismillahi mina seytaan rajim sëriñ bi sëriñ Abdullah Mbacke Gaynde Fatma ibnu sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ibnu sëriñ Modou Moustapha Mbacke ibnu Xaadim Rasul sëriñ Cheikh Abdoulahat Mbacke ibnu soxna Bali Bintu soxna Maymuna Kabir ñu lay siyaare bu wér a wér a di sant bu baax a baax ci sa teewaay di la ko booleeg sa mbokk yooyu nga xam ne ñoom nga àndal te ñu sant Mbàkke ak sa mbokki ñu bu baax yàlla suñu borom guddal saw fan ak say nga bokkal sant Mbàkke ak ñun ñi di seeni dongo topp seen ginnaaw di ñaan nga yàgg fay ñëw yàgg nu fee fekk ñu yàgg fee am jàmm ak xéwal yu fi yokk sant gi ñu ngi koy tàmbalee ci yow di ko yemale ci yow tàmbali gi ci yow mooy ndokk yàlla mbàkke bi nga amee ab taalibe boo xam ne ñu koy wax Serigne Cheikh Ndour muy taalibe bu mat a am li fi nit ñi wax rek moo fi xew ki la doon ñi la doon nuyu sàng bi nga nekkee ci néeg bi mooy tuuba Diaw ñooñu ay seex lañ yoo xam ne sa maam ju baax ja sëñ Modou Moustapha Mbacké ci la ñu jokk woon ci moom seen bàyyi sëñ Maalum Jaw bi sëñ Modou Moustapha sa maam ja ak xelam mu rëy ma ak xolab bu yaatu ba ba mu gisee ne sëñ Basiroo ngi fii ci la jël sëñ Maalum Jaw moomu ne ko dénk daal la sëñ Basiru sama rakk jooju ñooñu ñoo la doon niiw baax ak Seex Nduur dong moo tax ñu ñëw fi ndax Seex jumaa ji ñuy jullee sama wetu kër la nekk cheikh du fa tardé man la may mooy la may tardé jumaa ji sax fekku ci seex Ndour kon mu ngi ci yoon wi nga ko teg ñeneen ñi fi des mooy ki la doon nuyu léegi di siisee suñu mbokku daayira suñu mbokku taalibe yoo xam ne waa waa waa ñaseen nekk ci koñ bi di fi lu nit yëkkati mu yëkkati ko ànd ko moom cheikh mi matale gu mu matale moo tax mu ñëw ak ñeneen waaye ndokk loolu su ko cheikh defee bettuñu ndax li tax bettuñu sa waajur wa sëñ cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba muy woote daayira nga xam ne Sénégal kenn xamul daayira mu indi daayira mu def ko muy fédération bii regroupement religieux culturel et discipline de Cheikh Ahmad Bamba mu woo ci jullit yépp ndokk yàlla ba nga ca nekkee di ca liggéey ànd ca sa mag yi di ca liggéey liggéey bu wér ba ñu dénk la commission culturelle ba nga xam ne lu jëm ci affaire culturelle ci njàngum alxuraan ak école yeeg lépp yaa ko yor ngay dox ca loolu Cheikh Ndour ñëw maase la loolu ba bokkoon ñëpp kon tàllal ga sëñ Cheikh Mbacke tàllaloon woo jullit yëpp loolu la Cheikh Ndour def moo fi dajale jullit yëpp kon ñu ngi koy siyaare bu baax a baax di ñaan yàlla suñu borom bàyyi ko fi sab taalu bi la boo xam ne ba mu jotee ndigalu ànd ak ñun ci wilaay bi balee kenn mënu ko ci su waxtu liggéey bi jotee mi ngi ci su waxtu joxe jotee mi ngi ci dugal ci dugal ci njobootam soxna sa lay sant ñaan moom waa wilaay yëpp ko xam soxnaam ndax fu mu gis ko fa loolu la ko digal ci lay dox ndax xam na ne loolu yaa def sëriñam yaay kilifaam te ci loolu ngay dox kon Mbàkke ñu ngi lay wax loolu ne ne Cheikh mu ngi dox ci loolu taxul itam mu yem ci na na sa waajur woo woote woon rek ni la def bëgg a dajale lépp rek ba ñëpp mu amul yëpp na ko sëñ bi wooyoon dafa guddi lool waaye ñu ngi koy sant di la ñaanit nga ñaanal ko ndax kat lii yombut mbooloo mu toll nii yombut nga ñaanal ko mu bañ a beewu nga ñaanal ko mu bañ yaakaar ne nit ñi dañ koo topp ngir lenn du yàlla nga ñaanal ko na mu defoon ba yàlla suñu borom may ko nit ñi yàlla suñu borom def loola mu kon ne ci loolu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala yi bokki taalibe yi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la yi tamit ci sa bis bii nga xam ne dañ la koo sàkkal yow yow na at waaw xanaa kañ ñeent fukki yi tuuti ci manqué wax dëgg yàlla bëgg nañ nag ci sunu nisar ak lu ñu bëgg nga defal ñu ko ci daayir bi defal ñu ko ci koñ bi yàlla gën a jubale xol yi yàlla jubale gën a jubale taalibe yi nga ñaanal ñuy tamit ñi nga xam ne ñii bokkuñu ci daayira bi te war cee bokk nekk ay taalibe nga ñaanal ñuy tamit ñu ñëw bokk si ci taal daay bi daay ci daayira bi ndax daayira moom du dara lu liggéeyal sëriñ tubaa rek te dafa nekk barab bu liggéeyukaay sëriñ tubaa boo xam ne barab bu wóor la ndax li tax mu wóor waxtu wu ne ngeen di dajale seeni dërëm ak seeni ñaari dërëm ak seen ñaar fukk dajale ko ba mu matub lim ngeen jox ko seen jëwriñ mu tegal leen ko ci loxo sëriñ tubaa mu defal leen ko ci liggéey sëñ Tuubaa loolu xam ngeen lu wóor la loolu xam ngeen ne képp ku bëgg lu wóor xam nga ne loolu wóor la waaw ah sëñ bi ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér a ah, te li nga bëgg ci lislaam bi li nga bëgg ci yoonu sëriñ Tuubaa yi yàlla may la ko ñu ngi la koy ñaanal baax a baax a baax ci sunu taalibe sëñ bi ñu ngi lay ñaanal taalibe yi nga doon leen dimbale baax a baax a baax ak dëkkandoo yi ndax fii kat mbooleem ñi nga xam ne ñi ñi ngi wuyoo lislaam daje nañu fi ci bis bi te dara taxawu dara taxul ñu daje fi nag ñaari yëf dong moo tax ñu daje fi lislaam ak bëgg sëñ sëñ Cheikh nduur mii ak Aliou Ndour mii nga xam ne moom mooy seen jëwriñ ci kër gi di seeni waajur ak yow mii nga xam ne yow te yow yow yaa Serigne Touba ci jataay bi sëñ bi ñu ngi lay ñaanal te di la ndokkeel defal nga defal ñu fan wu gudd loolu wu ànd ak wér ñun sax wax dëgg yàlla e, ñàkkuñu ko léegi ñàkkuñu fan wu gudd wax dëgg yàlla sant yàlla ndax bari na suñu moroom yu dem bari na suñu rakk yu dem bari na ñoo xam ne ñii tamit ñooñu mag dem te ba tey ñun ñi ngi yaakaar ba teyaat ñi ngi yaakaar ci barkeb gaa yu baax yii ku mel ni sëñ Abdoulaye Mbacke mii moom Serigne Touba moom moom Serigne Touba moom moom Gaynde Fatma ñu ngi yaakaar ci barkeem ak sunu barkeem sëriñ ndax mooy sunu caabi ci Serigne Touba mooy sunu bunt ci tubaa ne danañ fi toogaat incha allahu taala ngir liggéeyal Serigne bi ndax li li nekk ci sunu xol bi dara nekku ci lu lu baax ak liggéeyal Serigne Touba waaw kon nag loolu ñu ngi la koy doolee dénk bu baax taalibe yi nag dañ maa dénkoon ma jot jottali la. nga ñaanal leen rawatina taaru bi kuréel yii waxtu wu nekk man maay seen jëwriñ waaye man sax dama xeeb sama bopp te waxtu wu nekk lu mel ni lii dong laay liggéey ci ñoom lépp lu dul loolu ñoom ñoo koy def lépp lu loolu ñoo koy def ak it lu mel ni lii ak loo xam ne lii liggéey bi teew na ñu ànd ak man dem ba ci xalif général bi teg teg teg loxo bi sama loxo teg liggéey bi sama loxo ma teg ci loxo xalif bi mu ñaanal mu ñaanal leen te bu leen di ñaan gi ci man la koy jaarale waaye sëñ bi man té war na maa sant yàlla billahi war na maa sant yàlla parce que loolu itamit yombul waaw te loolu yëpp sa barke mam loolu yëpp sa barke mam ko def waaw parce que sa mam mo taxawal yoonu murid bu doon won mom tay yoonu murid dana yéex a jere jërëjëf wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli عليكم wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi sëriñ bi nee na mi ngi leen di delloo ab nuyoo di leen jottali itam mbégteem di leen àgg itam ak cantam ci taxawaay yi nga xam ne moom ngeen taxaw te daa ko def démb ak barki démb te at mu jot it mu gis ak yokku ci pas-pas ak yitte ci ñi mu fiy fekk ñépp loolu nag di tawféex mu sant ci yàlla bu wér di leen ñaanal yàlla yitam ñi ngeen ko waxe ci mujj gi rekk li ngeen bëgg yàlla na sunu borom dogal loola di la gën ci yéen te mu defal leen ko nee na nag mu ngi fàttali boppam di leen fàttali ne jataay bii ni mu ko fi waxe daaw rekk noonu la koy waxewaat bu jógee jëm si fii dëggal sax day jàll poroxaan waaye fii itam du ne ab jaaruwaay la day yitte moo tax saa yu fii ñëw délégation bi mu fi àndal da leen di tànn waaye ci tànn gi itam du ñàkkit ñoo xam ne xam guñ xam fi jëm si mooy tax ñoom itam dañuy sawar ci ñëw gi bu leen ko sëñ bi wax dañ ko yàkkamti mu ne ànd na ak mbokkam ndax ànd na ak sëriñ Abo Mbàkke moom sëñ Fallou Seye moom sëñ Modou Ball moom maam Cerno Birahim ànd na ak sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Mouhamadul Mokhtar moom sëñ Cheikh Awa moom moom Thierno Birahim ànd itam ak sëriñ Mamor Mbacke moom sëñ Ibra moom sëriñ Modou Xaban moom sëñ Manoumbe ànd sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Modou Mahfouz moom sëriñ Cheikh Awa ànd na itam ak sëriñ Jili Mbàkke Pofdi ànd na itam ak sëriñ Cheikh sëriñ Mbàkke Fall moom sëriñ Cheikh Fall Baye Góor ànd na itam ak sëriñ Naar Fall ànd na itam ak sëriñ Basiiru Jenn ànd na itam ak maam Cheikh Mbodj sëriñ maam Cheikh Mbodj waaye noonu itam la àndee ak sëriñ Moustapha Diop njekk moom Baye Moustapha Diop njekk mi nga xam ne fu sëriñ Cheikh Massane nekk rek fu ñu ko Massane gis ci tukki ñoo ànd ànd na itam ak sëriñ Basiiru ñaan Abal ak sëriñ Ibrahima Kan ànd na itam ak sëriñ Saliou Fall ak sëriñ Abdou Sakor ak sëriñ Magueye Ndiaye ak sëriñ Modou Guèye ànd na ak sëriñ Pape ak sëriñ Cheikh Ndongo ak sëriñ Abdou Lahad ak sëriñ Mbaye Tall ànd na ak sëriñ Saliou Niass sëriñ Omar Ñaan ànd na itam ak sëriñ Cheikh Sarr ànd na ak sëriñ Balla Sill ànd na ak sëriñ Moustapha Lo ànd na itam ak sëriñ Ibrahima Tine ànd na ak sëriñ Diop ànd na ak sëriñ Fallou Dieng ànd na ak ku ñuy wax. serigne khadim gay serigne mbacke jeng soxna ndey cham saliwu serigne khadim diouf ak serigne biran fall and ak serigne omar diop ak serigne bacc sok ak serigne cheikh gueye ak serigne semu ciun ak ndongo li di wax ak yeen basiru ñaan lolu ñooñu la serigne bi andal ñu fukki nit ak ak lolu moy adama batok adama loolu mooy moom moom baatum aadama boo ko addadoon ñeent fukk ak juróom la lay jox waaw adatkat yi xam nañ loolu lim boobu li ci nekk euh, noonu sëñ bi ànd ñoom dafa bëgg ngeen xam ne fii mu ñëw ak fee mu jëm yittale leen jox moo tax délégation bi toll ni mu toll waaye amu ci kenn koo xam ne itam bi mu la koy wax dala cee soññ soññaat la ci ngir yàkkamti guñ fi yàkkamtee ñëw ànd ak moom ndax itam xam li ñuy fekk si ndax ñu ci bari ñëwoon nañ fi daaw jéeg ñenn ñëw nañ fi daaw sëriñ bi nee na bu loolu jàllee nag mu fàttali boppam rek fàttali nu li tax suñ boroom bind nu andi fi mooy nu jàmm ko sëriñ bi nee na mi ngi fàttali li sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul waxoon nee na tedd ngay àdduna ak jooy àllaaxira mëni su koo amee ci lu dul jaamu yàlla tedd ngay tay ak ëllëg sëriñ bi nee na ci jaamu yàlla rek lañ ko mën a amee nee na suñu bàyyee xel tuuti sax danañ xam ne jaamu yàlla rek moo am njariñ ndax gis nañ sëriñ bi ñi mu yar gis nañ ay doomam bu fekkoon ne jaamu yàlla doon na lu ñuy retraité wala lu kenn di sonn wala lu mat a bañ a def ñu mën na mën nañ koo bañ a def ndax xëy na liggéeyal nañ leen ko waaye këla gën a jege sëriñ tubaa moo gën a moo la gën a fonk jaamu yàlla loolu li muy firndeel mooy sëriñ bi ñëwu fi ngir jariñoonu nga la ngir won wonnu boppam sëriñ bi suñu borom la nu doon won jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nañ fokk jaamu yàlla nee na loolu nag sëñ tubaa dénkaane na ko ba tàyyi jaamu ji leen yàlla jaamu ji leen yàlla jaamu lu ma leen yàlla dem leen jaamu ji yàlla jaamu lu ma leen yàlla nee na lu sëñ Tuubaa wax na ko ba tàyyi te nee sëñ bi kat du wax du waxi caaxaan lu mu wax lu nekk suñu borom la ko jëlee nee na gannaaw sëriñ bi àgg ak nun foofu nag kon nun nañ góorgóorlu bu baax a baax góorgóorlu gi léegi nag mooy kenn ku nekk fa nga ne nga sax ci jaamu yàlla ak liggéey tey bañ a tooñ mel na yow. fa nga ne yow dong yaa fa di murit waaye ñëpp yow lañuy xool ci sëñ bi yaay seetu nit ñi ci sëñ bi nga jàpp ne lépp loo def lu dul noonu dañ naan xoolal waa kër sëriñ bi ni ñuy def xoolal njabootu xaadim rasul gi ni ñuy def nee na kenn ku nekk noonu la war a jàppe boppam fa mu nekk moo xam mu wéet fa wala mu wéetlu ko fa mooy la mu jàpp mooy moo fay seetu sëriñ bi wala ci moom la ñuy xooli sëriñ nee sëriñ bi nag wàcc na ndax lim nu war a wax lépp wax nanu ko lim war a def lépp def nanu ko kon nag li ci des ci noonu rekk la dese kon nee na bu nu yaafus nee na yaafus nag mooy nu bokk ci sëriñ bi ba noppi sunuy maam boole nu ci liggéeyal sëriñ bi wala sunuy baay boole nu ci liggéeyal ñu liggéeyal sëriñ bi ba am li ñu am ñu ñëw ci teraanga jooju fekk ko fi jàpp ne kat noonu lan war a def mooy tëdd rek di consommer nee na loolu yaa fus la nee naa taalibe ja war a jàpp ne la maamam liggéeyal sëñ tubaa baayam ko sëñ ba mu ba ba moom mu am ca teraanga daa war a jàpp ne loolu ndénkaan la du ndono ndénkaan nag ndono nag bu la neexee lekk ndax yaa ko moom waaye ndénkaan danga ko war a delloo ndax niñ la lijjantilee niñ la liggéeyalee lu doog su fii nee na sëñ tubaa bàyyiwut benn tabax biir tubaa tabax amutoon tubaab bi fi sëñ Touba di jóg tabax amu fa woon amu fa woon ña ko njëkkoon su ñëwoon rek ne sëñ bi def na lépp toog kon Touba du mel ne waaye xam guñ xam ne sëñ Touba da leen liggéeyal ñu war a liggéeyal seen njaboot moo tax kenn ku ne boo ñëwee dangay fàtte sax ña jiitu lañ defoon kon sëñ bi nee na nañ góor lu baax ci ndono lii nu fi ci euh, ndénkaane lii nu fi sëñ bi bàyyil te sàmm ko bu baax te xam ne nin ñi ko sàmm bañ jot ci waruñu noo gën a gore nun tam dañ koo war a sàmm ba tegaat ko ci ay loxo sëriñ bi nee na nun de bu nu bokk ci ñi nga xam ne dañuy daas sunuy làmmiñ ba mu ñaw képp ku ñu gis mu baax nu yëkkatu lu ñaw teg ko ci daram nee sëñ tubaa nee na sëriñ tubaa nee na derop gaa yu baax yi posan la deru gaa yu baax yi sëñ Tuubaa nee posen la nee na ku ci sëgg nanga xam ne yaa ngi posen sa bopp sëriñ bi nee sëñ Tuubaa wax na ne am na ci nit ñi ñu gëm am na ci nit ñi ñu weddi waaye am na ci ñoo xam ne dañoo yaakaar ne ngëneelul yàlla suñ borom da koo jagaleel ñee bàyyi ñee wala mu jagleel ko ñële bàyyi ñii nee na sëñ Tuubaa waxut sëñ Tuubaa daa wax ne wala tuqassis فضل رب قد على بذي تخدم فقد فتجلى إذ ربما أويفة موقرة ما خاب عمن قبله وعصرا فتلوا قد يبدو أمام الوبل فالفضل للوابل لا لتلي فلا تناس حين نظم يزدري نص حديث أمتي كالمتري سنتبع نينا بول جيل غني لو سون بروم جاغلال كو نيك بايكو موج لولو سيغ بي ليم نو بغا جانغال موي جاب ني نيو خام ني amul lenn ngëneel loo xam ne ak ku ñu tudd lu mën a doon ak nu mën a toll lu mën a am nañ xam ne la am suñu borom a ko jox te jagleelul ngëneelam ñu njëkk bàyyi ñu mujj nee na kon sëñ bi nee na nañ jàpp ne lu waay am ci lu baax war nañ koo mën a am bu nu xeebal suñu bopp dara bu nu suñu bopp dara ndax nag la sëñ bi wax mooy nee na ab tawkat am na taw yoo xam ne day saxal am taw yoo xam ne kenn ku ne dégg na ba tàyyi nawet bi di baax di baax di baax ci taw bu njëkk ba ca taw bu mujj ba ñu naan benn taw la ñuy xaar taw ba amul lépp yàqu xam nga taw bu njëkk bi saxal na waaye taw bay ñoreel itam nag moo tax sa mu ne na nga dellu ci hadiisu ba mu waxoon ne sama xeet bi comme taw xam ne sut bu njëkk bay saxal ak bu mujj ba ñoreel bu ci gën kon nag sëriñ bi nee na buñ xeeb suñ bopp nee na sëñ Tuubaa ay gor ànd ak moom. ay julit ay taalibe ñu and nak mom jaay seen lepp jox ko seen bop diko ko bam sumi kul summikul leen ba sumi kul leen nee lolé loolee loolee nag fi ba légui mi ngi fi neena ku jaar ca yoon wa def nañ daan def neena sax do ci ag ndax circonstance yañ doon dund jamono yi doon dund bokku ak suñu jamono legi lañ doon def ñoom ku def genn wàll gi da nga am lopp lañ doon am sëriñ bi nee na kon buñ xeeb suñ bopp nan xam ne sëñ bi yóbbu dara lépp mi ngi ko bàyyeeg njaboot gi kon ku jaar fa ñamu yaroon jaaroon di def lañ daan def am yéene jañ amoon sëriñ bi nee na danga am lu ëpp lañ amoon wala nga am lu la toll te nee na loolu lu ko wóor la nee kon buñ xeeb suñ bopp nee na nañu rafetalit ci suñuy dëkkandoo ak ci mboolem jullit yëpp jullit yëpp ndax sëñ Tuubaa mooy jëwriñ yonent bi waaw jëwriñ yonent bi nag ku ko am yow ana koo war a gis mu di jullit nga di ko bodd wala nga di ko xeeb sëñ bi nee na nañ yaatal suñuy dënn sëñ tubaa noonu la meloon ak njabootam noonu lañ meloon dañoo yaatal seeni i dënn xajoo ñëpp xajoo ñëpp ndax loolu sëñ bi woote sëñ bi daa woote wax ne man xéewal laa njariñ laa ju àndut ak lor adduna nag boo ko doon seet ba mu daj amul lenn loo mën a tudd loo xam ne daa am njariñ kese te amut lor sëñ Tuubaa dong la leneen loo tudd am na njariñ am na lor courant ngi nii mën a jariñu léegi waaye na ba tàyyi ndox kenn ku ne xam na ne lenn mënta dund te amul ndox waaye li ndox mi rey bari na lool kon lu am njariñ lu ne am na lor ba mu des sëñ Tuubaa moom dane za naf in bila dara bi na koo xam ne nag dangaa ànd ak koo xam ne daa yor njariñ lu dul jeex te amut lor nee na yow li si yéene mooy fexe ba ku nekk jariñ sëñ Ablaat wax nañu ko sëñ Ablaat nee nañu bu bis pencee kenn ku ne dangay ngay damu ci ñu ànd ak yow nee na sëñ bi nag li muy damoo moom bu ëllëgee nee na aw nitam balaa sëñ bee génn aw nitam ñoo jóg di ramm di ramm di ramm ba ñu naan ana ki nga xam ne buñ ko woowoo ba léegi génn gut aw nitam rek di jóg dërëm sëñ bi nee na kenn ku nekk ci noonu war naa bokk ca ñooña am na loo xam ne sëñ bi nee na am na loo xam ne àjjanay gàcce la mooy am murit àjjana jo euh, alaaxira ñëw nga waax yow képp dem dugg àjjana ne loolu gàcce la nee loolu gàcce la na kenn ku nekk fexe ba fexe ba ni suñ borom di puuka ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam di puukare woo ci yonent yi ci aw nit ñu baax ak nit ñu bari ñu baax noonu la sëñ Tuubaa yi puukare woo itam ci kanam yonent bi ci ñoom àndal ñu baax nee na kenn ku nekk ci ñun ñii nag war naa fexe ba bokk ca ñooña soxna yi sëriñ bi nee na àdduna sii ñu nekk lu fi baax lu nekk jigéen a ko fi def nee na amut genn góor goo xam ne man nga ne sama soxna sii su ma ko dencee suñ ci amee doom doom ju baax lay doon genn góor mënta waat loolu waaye jigéen ju mu neexoon nga ne suñ ma mayee diw su ma ci amee doom doom ju baax lay doon jigéen ju ne mën na ko waat nee na kon fu ngeen gis dara ak lu mu rëy rëy bu ngeen ko seetee ba ci biir jigéen ko liggéey nee na kon suñ borom fonk na leen lool lislaam jox na leenu cër cër boobu nag nee na ngeen jëlaat ko ngeen xam ko am na wootekat yu bari nag. yooyu woote ci àdduna si ñu ngi leen di woo ci lu nekk ñu ngi leen di woo ci fu ne ñu ngi leen di wan ne dañ leen a xeeb ñu ngi leen di wan na dañ leen a doydal ñu ngi leen di wan ne dañ leen a manqué fi leen lislaam teg ba àdduna soo ba léegi amul diine wala société bu fi ñëw teg leen fu na toll amut sëñ bi nee na ngeen xam loolu te xam na njaboot gi ngeen yor suñ borom jaarale ko ci yéen yéenay war a doon école bu njëkk ci ci njaboot googu te dañoo wax ne isa kaana man baawul nahri mu la wasan tal la wasan nahru kulluhu nee na fi tax gi balle bu taqee nee na dex géppay taq nee na balluwaayu njaboot gi nag mooy kër yi sëñ bi nee na nañ dellu ci kër yi te yaran njaboot gi xiirtal leen ci diine ndax nee na kat sàmm bu nekk boo ëllëgee danañ la laal la nga doon sàmm sàmm bu nekk boo ëllëgee sëñ bi nee na danañ laaj lañ doon sàmm te ku suñ borom jaarale ci njaboot ku ne dalaa yarloo dalaa samlo señ tuba newon na nak sam bu ne ñaari ra lañ koy reddal sa yu wacce dañ ko nan ñaari ra yi de bu ci ben amut da nga amuk pay ñu ne ko ban mu ne bu réerut ruur boo jurgi ba jurgi rur da nga amuk pay señ bi neena kon nun ay sam lan nanu fexé ba bu jurgi reer bu jurgi rur ab denkan la sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant nag yéen waa Kaolack gépp di ko jaarale ci taalibeem bi sëriñ Cheikh Ndour ak mbokkam yépp ak mbokki taalibe yi mu fekk euh, lii li mu koy def bariwut waaye nag cheikh mii mu koy defal ak ñi mu fekk si jaral nañ ko ko ndax seenu doxin ndax lii lim ci jublu ab soññ rek la ci won kone ko tege nga ciw yoon yaa ngi ci yoon wi doxal nee na nag ko amul taalibe lii ngeen seere ci moom te mu xam ko ci mu wóor ko ne lii ngeen wax ci moom dëgg la raayalu leen ko gannaaw ndax loolu la xam ci moom loolu tax na mu yëkkati ay ay tànkam at mu jot mu di ko def ànd ak njabootu sëñ Tuubaa yi mu àndal ak seex yi mu àndal ak taalibe yi mu àndal ñëw ngir firndeel na ko yoon wii nga jaar foofu rek la seex sëriñ bi nee na sant na la bu baax gërëm na la bu baax sant na njabo sa mbokk yi nga àndal itam ndax nee na xam na ne jàppale nañ la bu baax a baax dëgg la sax wax nañ ne loolu sa taxawaay la waaye nag du ne ku la lu baax lu ne ñu fay la lu baax nit leble na lu baax lu ne ba tàyyi te fay ñu ko lu baax nee na kon nag yéen ñu reconnaissant ngeen maanaam lii ngeen wax ci moom te fekk mu nekk ci moom seen mbaax a tax ndax xam na ne fa ngeen ko jaarale rek fara li ngeen ko jàng rek lay tari kon lii mu xam ci yéen la ko jëlee kon nee na mi ngi leen koy delloo dénkaat bu baax a baax ngeen jàppal ko ko te xam ne lu sori la ci moom sëriñ Cheikh sëriñ bi nee na sant na la baax lii la bi waxoon ne nañ leen ko wax nee sant na bu baax nag mbooloo mi sëriñ bi nee na sant na leen bu baax gis na yitte ji ngeen am ci moom gis na safoo gi ngeen ko safoo seen temps yi ni mu seere kenn ku nekk ci yéen am na lu mënoon a def yi waaye lépp da ngeen ko bàyyi yendu fii am ñoo xam ne démb lañ fi nekkoon am ñoo xam ne suñ fi jógee dañuy continuer nekk fi loolu lépp ngir yitte rek waaye nee na euh, suñ borom moo nu gën a xam ci kàttanu sëriñ bi euh, kenn ku nekk la mu bëgg euh, yàlla na yàlla dogal loola di li ci moom te borom defal ko ko kenn ku nekk la mu ragal yàlla na ko suñ borom dàqal mi ngi ñaan ne kon béy bi sëñ Tuubaa ñaanoon rek ne Euh, suñ borom nag nu defal lépp loo xam ne dañu jariñ te fegal nu lépp loo xam ne dañuy lor nee na mi ngi ko mi biir woowu mi ngi koy ñaanal dina yombal loolu mooy mooy sëñ bi dafa wax ne yassir la naa jami amaa yan faw naa wakku fa naa jami amaa ya duru naa suñ borom yàlla nag mu yombale lépp loo xam ne njariñ lay doon ci nun waaye nag mu fegal nag lépp loo xam ne lor lay doon ci nun